bullem ci fa bullem ci caaxaan te nanga sori fu ñu koy defee bullem ci fa bullem ci caaxaan di wax rek ne dañuy jàll ci deuxième partie bi ki war a def waxtaan bi nekk suñu maman soxna Ndey Fatou Fall xanaa maman dañ lay wax rek nga ñëw fii waxtaanu ñu waxtaan bu am solo moom nag enseignante la dafay jàngale ci école arabe Chamsidine en même temps moom ci biir séminaire bi mu ngi fa doon jàngale li nga xam te mooy vie conjugale maanaam jigéen bi nan la war a nekkee ci néegu sëyam kon dama leen wax rek tante Ndeye Fatou bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen baal àq di am mbégte kontaante si jotaay bi nga xam ne moom la ñu fas yéene amal tey ci suñu ngoonu tey bi si li nga xam ne moom la ñu sumbool di séminaire bi nga xam ne ñu ngi ko amaloon mu diire ñaari semaine mu nekkoon séminaire boo xam ni jàng la woon ak jàngale balaa ñuy dugg ci loolu ñu ngi nuyu suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci jotaay bi ñu toog muy suñu imaam yi suñu notable dëkk bi ak képp koo xam ne rek ustaaz nga wala ustaaza ak suñu yaay yee ci ginnaaw toog ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. comme niñ ko waxee xam ngeen ne dañu amaloon benn séminaire boo xam ni opération Mour Say Cër ñoo ko amaloon. séminaire bi ñu ngi ko tëraloon di si jàngale ñeenti dars bu njëkk bi mooy tawxiid Saad Ibrahim leeral na ko léegi ñaareelu dars bi moo nekkoon njàpp ak lépp loo xam ne moo ci aju muy ab tahaara suñu oustaz plus muy oustaz Mohamed Ndiaye moo ko taxawe woon ñetteel bi moo nekkoon julli comme ni ko ñëpp waxee ñi fi ni julli lu ñu soxal la surtout ñun jigéen ndax ñu bari xamuñu niñ koy defee suñu oustaz Cheikh Bukhari Ahmad Sow moo ko taxawee woon ñeenteelu dars bi moo nekkoon mbirum ziwaaj maanaam sëy ci islaam man maa ko taxawee woon séminaire bi nekkoon ay soxna kese ñu leen siy jàngal bi mu jeexee ñu def benn concours concours bi ñu waxoon ne képp koo xam ne gañe na séminaire bi dinañ ko fekk ba fa mu nekk ak fu mu munti doon jox ko neexalam sargal ko ci biir fameem booba nag xëy na xalaatuñu woon sax ne dina génn Dakar waaye jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam suñu mbokk suñu doom suñu xarit soxna Fatima Diouf macha allah yàlla dogal mu jël première place bi ñu koy ndokkeel bu baax di ndokkeel waa dëkk bi yëpp ndax sag la ci moom sag la ci dëkk bi yëpp ndax dafa nekk koo xam ne tiitër la ndax lépp benn affaire boo xam ne mbooloo ñoo ko doon ñoo ko doon xëccoo yàlla dogal yow nga gañe ko te musu ñoo gisanteeg moom ah loolu nekk na loo xam ne fierté la si ñun mais fierté la ci moom tamit ñu koy ndokkeel bu baax. ki jël deuxième bi comme ni ñu ko waxee mi ngi dëkk Touba Fatima Dieng ñëwul mais ñu ngi koy ndokkeel troisième bi mi ngi nee toog moom Dakar la dëkk muy xaddi leen si ñu ngi koy ndokkeel. comme ni ñuy ndokkeelee groupe bi nga xam ne moom la ñuy wax groupe 5 si njiitalu soxna. Amina madame Fall ndax xam ngeen opération Mour Say Cër am na juróom-ñetti groupe groupe bu nekk am na lu ma 200 personnes te groupe yëpp bokkoon nañu ci séminaire bi mais groupe boobu nga xam ne mooy groupe 5 moom la yàlla dogal ñoom ñoo jël ñetti place yëpp kon ñu ngi ndokkeel waa groupe 5 Amina ñëwul mais ñaari adjoint am ñu ngi ne toog soxna Mariam Diaw ak soxna Bintu Kan ñu ngi leen di ndokkeel comme ni ñuy ndokkeelee tamit képp koo xam ni. amira nga wala adjoint ci groupe bi ñoom ñëpp ñëw nañ ñu ngi ne toog macha allah yal na leen yàlla fay di ndokkeel suñu càmmi yi nga xam ne ñoom la ñu àndal sama doom yu góor yi Ismaël mi doon wax léegi nga xam ne mooy amir bi Cheikh Madior mi nga xam ne si xalaatu Mour Say Cër ci moom la jóge ak oustaz yi nga xam ne ñoom ñoo doon def waxtaan comme ni may ndokkelee sama doom yu jigéen yi nga xam ne tamit bàyyi nañ seen yitte yëpp pour ñëw taaral bis bi nga xam ne mooy bisu Fatima Diouf bii léegi nag soxna yi ñu dugg ak yéen rek ci suñu manin muy waxtaanu sëy bi nga xam ne moom lañ doon def ak yéen ci opération bi bu ñu bëggee wax lan mooy njariñu sëy xam ngeen ni sëy daf nekk na mbir boo xam ne bu bari ay njariñ la te bokk na ci njariñ bi nga xam ne moo gën a am solo ci sëy mooy dafay teral doomu aadama teraanga bu rëy la boo xamante ne nii yàlla moo ko teralee doomu aadama ndax xam ngeen ni bàyyi may bu soxlaa moroomam da koy fekk ci mbedd mi def ak moom ni mu war a def ak moom mais en tant que nit yàlla daf koo teral ne ko boo soxlaa sa moroomu nit fii ngay jaar ak fii ak fii mu mën laa lew dagan la yàlla subhanahu wa taala wax ci alquran suñu aaya séminaire bi wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma yàlla mu ne bokk na ci samay kéemtaan man yàlla ma sàkkal leen yéen góor ñi ay soxna yoo xam ne ci yéen lañ bàyyeekoo xam ngeen ni jigéen mi ngi bàyyeekoo ci góor comme niñ ko waxee mu ne ma def seen diggante nobel ak yërmande kon loolu mooy teraanga bi nga xam ne wala njariñ bi ëpp doole ci sëy pas-pas la boo xam ne dafay waral dafay daganal bànneexu diggante góor ak jigéen mu nekk loo xam ne lu lew lay doon ñaareel bi ci njariñ bi nga xam ne moom la sëy am xam ngeen ni sëy dafay waral xel mu dal nit ki boo ko takkee mu nekk sa soxna dangay am li arab naan raaxatul baal maanaam sa xel dafay dal sa xol tamit sa sa conscience dafay tranquille soo nekkee ak moom ci néeg bi ku ñëw xelam du ñaaw parce que soxnaam soxna nga amee mais tey imagineel boo tëju woon ak benn gel wala ku la lewul ci néeg bi sa xel du dal sa fit du dal kon bokk na si njëriñu sëy dafay dalal li nga xam ne moom mooy xel bokk na tamit si njëriñu sëy dafay tax askan am xam ngeen sëy bu amul woon kenn du xam kii mooy papaay kii wala kii mooy yaayu kii kon askan du am mais bokk na ci njariñ yi dafay tax askan am kenn ku nekk xam kii yaayam xam kii baayam xam ngeen ne tey nit bu demoon góor bu demoon tey trompé jigéen comme niñ koy waxee tëdd ak moom su amee ak moom doom doom jooju kenn du ko askanale ci baay bi kon kooku du am baay mais njariñu sëy dëgg bokk na ci ki nga xamante ni mooy xale bi juddu dafay am askan dafay am ndey ak baay comme niñ koy waxee bokk na ci njëriñu sëy dafay indi barke sëy dafay indi li nga xam ne mooy wërsëg dafay yokk wërsëg comme ni ko yàlla waxee ci alquran wankihul ayaama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yugnihum allahu min fadli takk leen si jeeg-jeeg jànq ji yàlla subhanahu wa taala mu ne takk leen yéen waa opération bi yéen ak may dégg jànq ji bari nañ fi macha allah te amuñu borom kër te mat nañ sëkk yàlla nee na takk leen ñi nga xamante ni moom mooy jeeg ji baax ji si yéen ak jànq ji mu ne bu fekkente ne da ngeen a ragal da ngeen a ñàkk yàlla moom moo leen di koomal moo leen di wërsëgal ci li nga xamante ni moom mooy ngëneelam moom borom bi subhanahu wa taala kon sëy dafay yokk wërsëg dafay yokk li nga xamante ni moom mooy barke ci askan kon loolu mooy njariñu sëy fi ñuy tëjee nag mooy dénkaane yi nga xam ne dañ leen koy defar rek loolu mënut a ñàkk yéen soxna yi xam ngeen ni sëy bu ñu waxee góor ak jigéen man toujours damay faral di wax samay kàddu di ñaax sama mbokk jullit yu jigéen yi sama doom yu jigéen yi sama sœur yi ndax lan ndax sëy mooy mbir bi nga xamante ni dafa bokk ci mbir yi nga xam ni dafay dugal jigéen àjjana su fekkee daf koo def defin bu rafet te sëy moom la yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni bu fekkente ni nit ki wala jullit bu jigéen bi julli na julli juróomam woor weeru kooram sàmm pëyam joxe li nga xamante ni moom mooy azaka topp borom këram dafay dugg àjjana si bunt bu mu ko soobe yent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ayuma imraatin maatat wa zawjuha anha raadin daxalatil janna jigéen boo xam ne génn na àdduna borom këram gërëm ko fekk mu doon def lu neex yàlla mu ne kooku dafay dugg àjjana te yaakaar naa ñun ñëpp ñun jigéen ñëpp àjjana la ñu bëgg ndax gis ngeen li ñuy daj ci biir néegu sëy yi gis ngeen ëmb nu mu mettee wasin raw ko fuuf ñu jox la góor ne la toppal ci ginnaawam tarbiyoo ko mu metti lool kon loolu dañ ko war a rafetal ndax mooy tax ñu dugg àjjana nan lañ koy rafetalee nag mooy ñuy dégg ndigal mooy ñuy dégg ndigal jigéen dafa war a nekk koo xam ne dafay topp ndigalu borom këram lépp lu mu ko sant mu def ko fekk sant ko mooy yàlla ndax xam ngeen ne topp googu ñuy topp ndigalu borom kër yi mooy seddal seen xol ba suñu faatoo ñu mën ñoo gërëm bëri na koo xam ne yaa ngi nekk ak sa borom kër ci néeg bi waxul demee daf laa jéppi ndax déggoo ndigalam te góor bu xasee ñàkk baat ci kër gi ñàkk na lépp kon maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ñu topp ndigal beneen bi mooy ñu rafetal ànd bi ñuy ànd ak borom kër yi rafetal nag bu ñu ko waxee ci lépp la ñuy wax ndax xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yàlla dafa bëgg rafetal ci lépp lu mu munti doon xar sax boo koy rey dañ ne na nga ko rafetal na nga daas paak bi ba mu ñëw waxuma la ak sëy kon nañu rafetal ni ñuy àndeek borom kër yi ni ñuy rafetalee ànd bi mooy ñuy wax ak ñoom wax ju neex mbokk yi dama sàkku damay sàkku di ñaax toujours ñuy wax ak borom kër yi wax yu neex ndax wax bu neex sarax la wax bu neex mooy maye lu nekk ci sëy lépp bari na loo xamante ni jigéen ñàkk na ko ci biir néegu sëyam li ko ko xañ mooy wax bu naqari xam nga ni góor goo xam ne moom moo la takk ci xaalisam indi la ci kër gi soo ko bëggee jaay maanaa wala nga bëgg ko wax bu naqari seen ànd du neex kon nañuy jéem a wax wax bu neex beneen bi mooy nañuy sañseel borom kër yi xam nga ñun jigéen dafa am lu ñu sant suñuy génn nañu muur suñu cër ba mu daj bu dara génn lu suñu loxo ak suñu kanam mais kon jigéen ni ko yàlla bindee mu nekk koo xam ne ku bëgg sañse la ku bëgg taar la am na kan ku mu ko war a wan ki mu ko war a wan mooy kan borom këram kon nañuy sañseel borom kër yi jasneer yeeg brode autorise yeeg mbasin riche yi nañ koy génne ci biir kër ga di ko sañseel borom kër yi bëri na borom kër boo xam ne bu gisee borom soxnaam sañse dafay génn su ko defee nag bu dem uti leneen suñu xol di tàng surtout aaw yi ñu baal ma kon jigéen ñi nañuy sañseel seen borom kër yi ci biir kër gi te xam ne sañse boobu ngay sañseel sa borom kër muy kontaan xolam di neex danga ciy am àjjana danga ciy am ngërmaane borom bi subhanahu wa taala beneen bi mooy nañuy toppatoo lekk gi lekk gi moom chaque jour dama siy insister parce que bëri na góor ñoo xam ne tey jii feebar nañ lekk gu bon moo leen feebar ceeb bu ñàkk a ñor ndawal loo xam ne du ñor bouillon yi nga xam ne bari na lool léegi ñu koy def si togg yi te du am wér gu yaram kaani gu bari gi nga xam ne dañ koy togg ñàkk a sell gi nga xam ne moom la lekk yi di ñàkk a sell ma leen di wax rek xabatu si saxoo xabatu soda képp koo xam ne yaa ngi gisee ak moom incha allah am na yoo xamante ni produit yoo xam ne daf koy defar dañ koy def si cin te doo ci def magie doo ci def lenn mu neexal ko xaw ma Ismaïla indi nga yooyu wala déet mais épices yi nga xam ne dafay dem ci togg daf koy neexal te jarul nga ci def ay magie ak kii bi yeeg yooyu yu mel noonu kon yooyu nañ ci bàyyi xel togg gi nañ suñuy togg nañ ciy farlu waaye tamit na nekk loo xam ne dafay neex gis ngeen jigéen ñi xam nga fan la ñu rawantee wax ju neex col gu rafet loxo bu saf boo xoolee léegi tey li tax togg gi suñuy togg naqare dañ koy yàkkamti yàkkamti ngaa teg cin li pare dem doxi say soxla te pourtant yow li war a nekk sa yitte bi gën a rëy mooy nga jox sa borom kër mu lekk loo xam ne lu neex lay doon ak lu sell kon nañu mën a farlu ci li nga xamante ni moom mooy lekk gu neex gi beneen bi nañu farlu ci xet gi xet gu neex xam nga jigéen dañ ne la booy génn sax bu laal parfum sangul ba set rek nga sol yëre yu set parfum bi dee ko denc si kër ga boo nekkee ci biir kër gi nga daal di xeeñ lu neex waaye defar say bëñ ba nga xamante ni xet gi dafay neex bëri na jigéen boo xam ne dina tëdd ak borom këram borom kër bi ñàkk pexe rek mooy tax mu def ak moom yenn yi ndax lan xetu gémmiñ te xam ngeen ne loolu musiba la te loolu tamit nekk na loo xam ne gàccee jigéen la jigéen war naa nekk koo xam ne dafay fonk gémmiñam ba xet gi dafay neex ndax xam ngeen gémmiñ rôle bu am solo bi nga xam ne moom lay def si biir néegu sëy suñu kilifa yee tax duñ ci egg mais yaakaar naa ñun jigéen ñëpp xam nañu rôle bu am solo bi nga xam ni gémmiñ daf koy def kii moom yaakaar naa ku gisee ak moom mooy pat yi nga xam ne moom la si soxo di jaay pat yi bu ngeen ko gisee dañ koo liggéey ci liggéey boo xam ne bu naturel la amul benn effet secondaire xabatu sawda lañ ko defaree te xam ngeen ni xabatu sawda matière la boo xam ne yonent bi salaa salaam daf koo ñaaxe daf ni garab la goo xam ne lépp lay faj ba mu des dee te xam ngeen ne am na socc bu ñuy wax socc araak yooyu yëpp daf koy composé def ko ci pat bi boo ko boo ko patoo sa gémmiñ yaakaar naa ñu bari ñu nekk fii ñu essayé nañ ko duñ ñu bàyyi ñu wax lu dul dëgg ñu bari xam nañ pat bi pat bi moom dama ne boo koy patoo sa borom kër daf lay gën a jege te day gën a sawar ci yow ndax sa kàddu dina gën a neex waaye sa xetu gémmiñ tamit dafay nekk loo xam ne luy gën a neex la ba pare dafay wéral say bëñ dootul nàcc dootul am mbuuraan dootul def leen te foo siiñe borom kër bi kontaan te xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na tabassumuka fii wajhi axiika sadaqa muuñ bi ngay muuñ sa kanamu mbokk jullit sarax la waxuma laa nag ci kanamu sëriñ bi beneen bi mooy nañuy jéem a toppatoo suñu yaram ñun jigéen jigéen dafay toppatoo boppam dafay toppatoo yaramam nan ngay toppatoo sa yaram mooy ngay boo ginnaaw ba nga lekkee lu baax toppatoo sa bopp ndax yow jigéen toujours damay wax ne benn bànneex la boo xam ne góor dafa ñeel góor kon kooku war na nekk koo xam ne kuy toppatoo yaramam lay doon waaye tey bëri na si ñun ñoo xam ne bu ñu sëyee benn yoon am benn doom ñaari doom bàyyeeku nañ koo ci gis ay weenam a ngi lang di daanu koo ci gis boppam a nga ràpp koo ci gis dootul sol sax lu ànd ndax danaan am naa borom kër ba pare te boo amee borom kër ba pare si nga war a toppatoo nag sa yaram yow ku jigéen gis ngeen kii lem la xone sama chéri Amina waroon na fee nekk kii mooy xone maanaam lem kii boo koy naan dafay faj lu baree baree bari si yow ku jigéen ki dafay raxas sa kër daf lay sawarloo te xam ngeen ni jigéen dafa war a sawar nee naa bañ naa jigéen boo xam ne mooy njëkk nelaw jëkkër moo koy mujjee yeewu jigéen dafa war a sawar te lem bi boo si jëlee kudd nga naan ko ci dangay ànd ak cawarte goo xam ni yaa yeetal sëriñ bi yaa koy yee ndax jigéen dafa war a sawar dangaa war a njëkk teel a tëdd dangaa war a bàyyi ba sa borom kër nelaw nga door a nelaw mu yeewu nga yeewu lem bi boo koy naan da ngay gis sa yaram dafay sawar dafay naayi su ko defee yow nga nekk koo xam ne da ngay toppatoo sa yaram ndax ñu bari si ñun mënatuñoo dawi mënatuñoo sport mënatuñoo def lu bari te xam ngeen ni lem garab la te ba estomac yi bari mi suñu surtout ñun jigéen ñi ndax kaani gi ñuy lekk yooyu te boo ñamee lem bi yaakaar naa ñu bari ñam nañ ko fii ànd naag mantak yu mel noonu ba pare boo koy lekk day reesal li nga xamante ni moom mooy li nekk sa biir xam ngeen ni ñun jigéen dañoo bëgg lekk jigéen moom balaa am lu ko neex mu dank ba bool bi jeex mu daal di naan potu ndoxam léegi nag boo si tegee sa kuddu lem rek dafay reesal ñam bi nga xam ne moom nga doon lekk mënu mën a digérer su ngoonee nga mën a lekkaat leneen kon kii bu ñu paree nañ ko seet fii incha allah am na ci beneen bi mooy suñu der bii nañ koy sàmm gis nga jigéen dafa war a nekk deram dafa war a nekk lu liis waaye dafa war a nekk loo xam ne lu nooy lay doon boo tëddeeg sa borom kër sa yaram mel ni njàmpe bu xëyee même bu utiwul keneen xelam dina nekk ci keneen su amul doolee takk xelam dina nekk ci keneen kon sa yaram da nga koo war a toppatoo ba mu nekk loo xam ne lu liis lay doon lu ratax lay doon lu nooy lay doon xam ngeen ni jigéen ni ko yàlla bindee dafa nekk loo xamante ne nii wala jëmm joo xamante ne nii dafa war a rafet dafa war a nooy dafa war a nekk koo xamante ni macha allah. kii bu ngeen gisee Ismaïla kii mooy nay neex nay neex yaakaar naa jeeg ji xam nañ ko man bi ma ko xamee ba léegi tey si suba ñi fanaan sama kër gis nañ bi ma xëyee moom laa doon diwoo da nga koy diw sa yaram mu nooy nepp nga diw sa bopp mu indi sa karaw bu fekkee sa karaw dafa dagg nga def ko ci nay neex bi mu yokk neex bi kon kii ay njariñam dafa bari xam naa bu ñu paree xool ki nga xamante ni moom mooy Ismaïla kon soxna yi kii tamit comme li ma leen ko waxee dañoo war a aar suñu yaram kii pompe la pompe boo xam ne soo ko pompoo ci sa yaram sa yaram benn danay dafay xeeñ xet gu neex ba pare bu fekkente ne dangaa amoon njabar te gis ngeen ne dëkk bi léegi képp ku nekk si ñun même bu fekkente ni gëmoo njabar demoo ci sëriñ léeg-léeg njabar mën na laa jàpp wala yu mel noonu kon pompe bii bu fekkee dañ koo am dafay defar suñu yaram danga koy pompe sa yaram li nga xamante ni moom mooy bët xam ngeen ne yeneen bi ne woon na al aynu xàqun bët dëgg la léeg-léeg nit xool la xëy na sax jubluwu ci dara mais bët boobu mën na la lor yooyu yëpp dafa am lu ñu ko composé ay ndoxu sam-sam ay falaxeeg naaseeg ñoom seen secret yu sew sewaan yooyu su ko defee léegi lii moom dañ lay wax rek essayel soo ko essayé yow yaay àtte sa bopp comme li borom kii bi wax rek jarrib wa antal xakam essayel soo paree yow yaay àtte li nga xamante ni moom mooy sa bopp suñu paree nag daal di bu ñu déggee suñu yaram def li ñuy def lépp ba mu baax togg togg gu neex comme ni ma koy waxee toujours daal di jël lii nga xam ne mooy tee bi nag jox ko borom kër bi mu naan ko defal ko benn kaas rek jox ko mu naan xam ngeen ne jigéen bu fekkee dafa yendoo liggéey ci kër gi sonn lool togg togg gu neex daal di defar néeg bi ba mu macha allah solu ba jekk xeeñ lu neex wax dëgg yàlla am na looy soxla nag loolu ngay soxla nag pour mu gën a am njariñ ci yow utal tee bii rek su ngoonee nga jox ko allaaji daal di koy defal si kaas bu set kaas bu rafet daal di koy jox mu naan tëdd jàpp sa ñaambur soo ko laalul sax moom dina la laal boo ko soxlawul mu soxla la kon mbokk soxna yi ñi ngi jéggalu ci kàddu yi di wax ni waxtu bi moo ñu xot ndax xam ngeen dañoo war a ñibbiwaat ba Dakar su dul woon loolu tey dañuy toog di waxtaan ak yéen jëmale fajar ndax dañoo kontaan ci ñëw bi nga xam ne dañ ko ñëw fii suñu doom ji nga xam ne mooy Fatima Diouf gañe bi mu gañe dañ ci kontaan mag ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen yitte ñëw toog jàkkaarloog ñun wax dëgg yàlla dañ cee kontaan añ yu neex yi tamit kontaan nañ ci ak da rafet bi macha allah kon ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala at bii di ñëw ñu bàyyi ñu fi ba ñu def beneen séminaire keneen jël ko ñu dem fekk keneen feneen fu mu nekk comme niñ leen ko diggee woon lii mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon fii si Nioro ci suñu jeexitalu séminaire bi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم waaw jàng bi kontaan naa kontaan boo xam ne. xamatuma ci ma toog man nit laa wala nekkatuma nit. ndeg la ndeg kontaan. jigéen ci boppam dafa war a xam boppam. ni ma ko waxee nii. jigéen ñi képp koo xam ne dégg nga ndigal te dégg li mu wax. incha allahu rabbi da nga jur doom bu baax. te da nga am lu baax. te foo dem mën faa nekk foo dem mën faa nekk. nekkin bu rafet ak sëy bu rafet. soxna si yal na ko yàlla may wér ak bu fan. te mu yàgg nag. de waxtaan alhamdulilah rabbil alamin ak yéen ñi def waxtaan bi yëpp sant nañ leen gërëm nañ leen ci lii alhamdulilah rabbil alamin sama yitte yëpp lii la lu taxawal l'islam demal ko kanam rek mooy samay affaire Fatou mi suñu doom la ñu koy bàyyee ko ba Lindiane Lindiane la dëkk ñun ñoo xelati papaam ñoo ñëw kon nag kontaan nañ ci bés bi ñi gañe ñi gañewul yëpp yal na yàlla may leen ci dara ji moom sala yéen ñi jiite yal na yàlla yàggal leen di leen jiite ci lu baax jërë ngeen jëf kontaan nañu ñëpp man ñi wax ak yéen imam Babacar Babacar Guissé laa tudd kontaan moo tax may wax lii jërë ngeen jëf mooy sa ndam te loo ci xam nanga ko jëfee bul dem ci fo bul dem ci caaxaan te nanga sori fu ñu koy defee andana bu ban moytul ma ko dalay yàqu
Sissoko xabatu sawda ñëpp ko ràññee ci réew mi ñu koy félicité waat bu baax a baax 2009 gannaaw ba mu jàngee ca Fass Touré ba noppi la ñëw fii ci ndakaaru ubbi butigu xabatu sawda 2010 mu daal di koy ubbi Gàmbi 2011 mu daal di dem Dubaay dem jàngi yokk xam-xam 2012 mu daal di am lijaasa ci médecine prophétique lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon jàngale à base de plantes naturelles 2013 mu daal di amati beneen lijaasa 2014 mu daal di amati beneen lijaasa lépp ca Dubaay ca école ba nga xam ni moom la ñuy jàngee médecine traditionnelle li nga xam ni moom la alayhi salaatu wasalaam jàngale yépp ci médecine traditionnelle 2015 mu daal di yokkiwaat xam-xam ca Chine moom si sa ko xabatu sawda ba mu ñëwee Chine ñëpp dañu daw topp si ko ne waaw kii xam-xamam bii kat ñëpp dañ ko war a jëriñoo mu daal di fay ñëw daal di fay def ay kéemtaan ci wàllu plante naturelle ak lépp loo xam ne alayhi salaatu wasalaam moom la doon jàngale mu daal di ubbi nag espace bu mag a mag a mag a mag a mag ca Nord Foire rond-point 26 janoo ak ko ñu yëm yëm bi yéen ñëpp mën ngeen faa ñëw bu ngeen ñëwee dinañ leen seet seet seen yaram bu baax a baax a baax a baax a baax seet seen yaram seetantal ko bu dee da nga di jigéen jigéen ñi ñoo lay seet toppatool la sa yaram defal la ventouse mi nga xam ne moom ngeen di gis ñu koy def fépp ci àdduna bi ci réewu arab yi ñooñu am wérgu yaram am jàmm am salaam am dal bu dee góor nga tamit góor ñi ñoo lay seet lépp ay produit naturel la à base de plante jaaree ko ci médecine prophétique bi nga xam ni moom la alayhi salaatu wasalaam doon jàngale bu dee pour jigéen am nañu confiture à base de plante développé yenn parties yi ci seen yaram ay produits yoo xam ni dafay tax nga jeex ay produits yoo xam ni dafay tax nga am karaw am karaw lool am karaw ba jaaxal ñi nga xam ni ñoom nga nekkal ak ñoom nga dëkkal am nañu potu karité boo xam ni dañ ko mixé ak 15 produits yoo xam ni produit à base de plante naturelle la ak xabatu sawda mën nga ci frotter sa yaram say genou buy metti moo ci baax booy am douleur articulaire booy am douleur musculaire am nañu it honey mint koo xam ni da ngay tux cigarette te koo bàyyi buñ la joxee honey mint daanaka cigarette da lay génnal ko nga dëdd ko benn yoon am nañu pompe miracle pompe miracle nag duma leen wax lan la xool leen ko te ngeen dem ci Sissoko xabatu sawda mu wax leen lan la lépp luy toroxal seytaan ci sa yaram luy dàq seytaan ci sa yaram lépp lu indi seytaan ci sa yaram da koy dàq te dindi ko bu dee ci ngóor am nañu ay secret pour góor ay secret yu am doole nga doon góor dëgg ay secret xabatu sawda loo xamante ni dañ ko jàng te lépp à base de plante naturelle la bu dee da nga am jafe-jafe nelaw bu dee da nga am stress bu dee da nga am ay jafe-jafe wérgu yaram ñëwal seet suñu boo ñëwee dinañ la dugal toppatoo la seet la ubbil la dossier di la toppatoo bu baax si su ko xabatu sawda ñépp a ko xam ci Sénégal ñépp a ko xam ca Gambie ñépp a ko xam ca Nouakchott ñépp a ko xam ca Bamako boo amee jafe-jafe constipation buñ lay wax naan da nga am sukkar wala da nga xorom jafe-jafe yooyu yépp bu nekk am nañu bu koy saafara xaw ma kan de man duma xeeb sama doomu réew xeebuma ko benn yoon ndaxte kat ba mu demee Chine dañ ko topp ndiiraan ba mu demee Dubaay dañ ko topp ndiiraan ba noppi it ñooñu di fa jóge di ñëw di jël si si xam-xamam kon nag man xeebuma ko dem leen gaaw mu defal leen consultation xool leen woo leen ko ci 77 661 52 32 wala 77 866 34 78 wala 33 820 34 86 Sissoko Habbatu Sauda ca Banjul ca Serekunda ca Bamako ca Nouakchott ca Bakel fii ci Ndakaaru seeti si ko mu dalal sa xel dalal sa xol sa wér-gu-yaram gën a am solo si suuxu xabatu sawda ñi koy wër a bari ñi koy seeta bari ñi koy topp ñoo bari waaye lépp à base de plantes naturelles ak li alayhi salaatu wasalaam jàngale si soxo xabatu sawda jërëjëf ci sa laa biir ak sa baax ak sa bokk ak say toppatoo doomi réew mi ak doomi